yonent yu tedd yi yëpp kooku kon seen ruye la ñoo ñoo ñoom déwuñ dajeeg ñoom ji ji ci lañ julli ba mu fa jógee nag wa saada fihim wa baana na anhum wa siina anhum ja léegi nag salaam nag moom daal daal di fay wàcc nag daal di wuy wa siina anhum ja moom mooy mooy ne nag xamatuñ ci moom dara ba muy wax ne gaa yi bañ ko osaade fi yim ja ba mu nekk seen biir doon seen sang sawi naqaa yi ja moom a ci yëm loolu seen xolee laab seen sët bii kat moo moo leen gën seen sët bii leen raw ba napp ñu nangul ko sawi naqaa yi ja lu am solo la te xol bu xol xol bu sell bu nangu nangu dool rek waaw nangu dool ba mu demee ca xadra ya ba ñibbisi attaxiyaatu yi ñuy wax ci julli gi nee ñu moom la ko suñu boom doon moom lañ doon joxalante attaxiyaat moom lañ doon joxalante ci nuyoo ba suñu boom daal di koy sëñ Fallu am na band boo xam ne daana ko ko wax daana waxtaan ci guddi gii daal ni kat intervention ci la amee loo xam ne kenn musu ko am daal dina nag yàlla jox ko sëriñ ca juróom fukki julli juróom fukki julli nag Seydina Moussa alayhi salaam yàlla na ko yàlla dolli leer moom it loolu jàmbaar la dimbali dimbali nañu de Seydina Moussa juróom fukki julli bi si la salama jógee ci xadra ba di ñëw romb ko ah yow lu la sa boom jox jox na ma juróom fukki julli juróom fukki julli mënuñu ko de man sama xeet ñoo gën a gudd fan gën a wér gën a dëgër te ñoom mënuñu ko yee digg nag wax ne ñaar rakk la leen joxoon képp ñaar rakk yi jafe ci ñoom ne ko nag xam nga mujj jamono ci la nekk noonu ñu adduna bi mel ubbiku nii nangam yu bari yu ba soxla yu bari du ko ah jëf ji mën ñu ko dama dellu dellu sa borom sa mu dem saa su borom daal koy wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ba muy saa bu dikkee mu ne ko yii demal doyu de sëñ Moussa jàmbaar la mooy dem nag ba ci juróomi julli yi nag mu ñëw ñaata la mu am na ko juróom yii loolu loolu ëpp na defal mu wàññi ko saa salaam na ne ko ah man nag rus na maa delluwaat nag joxal la juróom fukk di ko wàññi ba mu juróom sëñ Fallou daal di wax ca leeral ga naafila yooyu ñuy def ñeenti rakk jë jëkk tusbaar ñeenti rakk ginnaaw ba ñeenti rakk jëkk takkusaan ginnaaw bi moom amul amut timis boo noppee juróom benn rakk nangam gee ñeent rakk jëkk jëkk jëkk gee ñeent rakk ginnaaw gee ak fukk yàgg nangam juróom ñetti rakk ak safak bi tax lépp soo ko boolee juróom fukk la yàgg mu ne kon ku ko doxee noona juróom fukk fukk yi yaa ngi koy dox waaye nag ku ku julli juróomi julli képp am nga yoolu juróom fukk julli si fàllu nag daal di wax ne julli mooy liggéey bi li ñu fi andi ci àdduna mooy julli képp il faut du ko tënk julli mooy liggéey bi julli gone gi sax amagul masal kii xam ne jotagul mag fukki at ak ñaar amagu ko julli waru ko am Cheikh Sow Cheikh Sow julli waru ko xam na waaye nag dañ koy tamal julli ngir mu tàmm ko ndax julli daa xaw a métti wa innaha la kabira dafa diis illa al xashi ñi jàq ñi ñi jàq ci su borom jàq bis penc yooyu ñoom moom julli buñ dee xalaat ci bis penc julli da da daa di woyof ci ñoom toy waaw waaye nag koo xam ne daanaka xamugoo yooyu maanaam doo jàq kon Cheikh Sow dañ koy tàggat ci mu julli tàmm ko nu mu ko defee baax na nga xam ne am nag suñ bakki bii moom daa war a jàpp jàpp mu. tegu ci yoon am ab lay loo sax da ko war a def xam ne da nga sëñ Mbàkke bii moom daa war a dafa war a jàpp moom sama maam maamatan ndumbe daa bind ab téere wax ca lu am solo ninkaan wax ne bépp borom kër war naa seet gëstu ak njabootam naka la ñuy wéetal yàlla ñu fas ne yàlla kenn la ka ka juddu fale ngenti laa ceet gaag dëj ba lépp kenn ko def ñu ñu ñu ñu ñu faseet leen loolu bañ fas ko xam ne yàlla kenn la mooy la siba sibaat waxoon ne boo jàngee sootul lixlaas ba mu jeex koo koo fa gisul aw turam bukkul ci ngor gi ko wallaahu ahad laaw samat bukkul ci ci ci ngor muy lu muy lu am solo maamataan du mbene waxal am tawxiid gi pas pas bi baax na yàlla moom suñu ci yàlla mu nagam nga xam ko dogal bi mooma lépp nee na nga gëstu ba xam góor jigéen la wax ku ne si kër rek nga yor ko ndax léegi am laab xam na ko laab laab mooy misaal kat seen toilette bi wana wi daa war a set déet koo war di raxas ba mu set ba mu set bi wécc nga xamante ne sobe sobe du fa nekk ba nga cay dëgg sobe takk sa yére te xamoo ko nga dem jàpp julli julli woo kon wana waa dafa war a set moom dem naa fu ñuy wax ci Italie xaw ma naa ci waay ab dëkk ci Italie boo xam ne boobay boobay ci été bi la été bi la mooy waxtu tàngoor wi ci àll ci àll ba la ñu ne ma dem fa takkusaan la fa agsi ñu ne ma sëñ bi kaa ñu wan la toilette ma ne baax na tax man maa ngi jàpp ne daal ku amoon ngénti ngénti rek aw xew wala màggal sa salle bi nga ubbil ko mbooloo mi incha allah bu ñu demee ba nga wax dugg dañ la ko topp toll mbooloo te mbooloo mu mës mës yi la ma fanaan fa bët set ñoom ma sëñ bi kaay ñu yóbbu la ci nga sangu mu kon mu ma ñàkk dem ma dem rang ba àgg si yu ma ubbee toilette bi daa mel ni nit dugg fi ma ne ci ñi xam ne yow xamuñ julli ñoom xamuñu set ba noppi gën a laab gën a set julli ñi maa maa ngi ci waxtay julli de kon waraw yi ngay dugg daa war a set moom ba noppi ci ci nga dugg fa bu setee nag ci ci nga dugg fa kon léegi yow soobee du la laal wax naa ne képp ko sol pantalon yoo xat booy dem ca wana wa wóoroo sukk da ngay sukk si bëti woom foofa bu taxee doo ko mën kon boo copparoree boo turee ndox ba noppi raakolo bi ndox may jaar dafa gudd boo jógee day seet kooka kon daa wax taxaw taxaw bi nag fa ngay sotti ndox ma fexeel ba bu bu mu tis ndax bu tisee day dikkaat ci yow kon sol pantalon kon bu xat moom kon bokkut kon ndax sol pantalon bu xatee kon yow doo mën a jooxee sa farata ci setlu boo demee ci wana ba noppi sa aajo ja faj nga ko ba noppi nga am fab diir tuuti tuuti rek ba bàyyi sa xel ba jot ne lii génn ci yow set na sëñ Abdou Aziz Sy al ibnu rahimahullah fekke naa ko fekke naa ko Kawlax jàkka jàkka juñ fa doon teg xeroo muy waxtaani lii xero dama yéemu rahimahullah nga xam ne kon da ngay setlu al istibra setlu yëf yi nalu ba jeex tàkk ba nga jàpp ne na jeex na nga daal di ndox mi ngay raxasoo nay ndox moo xam ne mut laq la ndox moo xam ne mu boy la ndox moo xam ne amul tënkuwul xet ga caf ko ga képp rekkatam nga raxasu ko ba ba mu set loolu mooy tàmbali njàpp mi xam nga julli gi ci la fa laa jëkkee waaye foofu foofu foofu lañ jëm mu julli dégg nga membre membre Tade lu li wax ci nga jàngal sa waa kër yooyu nu ñuy nu ñuy seetloo tawxiid ja nu ñuy seetloo njàpp soog a ñëw nga jàngal leen leen ndox moo xam ne xet ga soppiku na te soppikoowul ca robinet ba wala ca teen ba caf ko ga soppikuwul ca robinet wala ca teen ba couvert ba noonu melkaan wa ndox moom kenn mënu cee jàpp baaxul kon satala yi. jëndoon naa fi satala andi woon na fi satala yu bëri waaye gone yi yàq ko xamatum naa xamuñu dëgg dëgg njëriñ li buñ buñ mënoon a fexe ba ba wuutaat nag ay satala yoo xam ne da nga teg fii ci ci jàppukaay ba rangale ko fa gone yëpp xam ne di satala ak jàpp la du satala ak dem ci wan a wax ndax dañuy ragal dem ci wane wa am Cheikh Sow for di xoolee bu for ba tarxiis maanaam léegi satala ga daanu sobe dugg ca mu daal di ko xool gisul kenn mu daal di ñëw jël ko teg teg ko nga dem duyaat ko yow fekk ne sobeñ ci kon satala ak jàpp am naa maam ñu wax mu samba ante ceebo suñ kokki mu samba ante ceebo satalaam gi am suñ kokki la suñ kenn fa nee na ma seen ras samba bi ko suñ tuwaay di fekk si kokki guy ñetti téeméeri fasinaari góor lay rëppatal loolu kon ñetti téeméeri paasoro ngay wax loolu amatu noonu tera nga jooju sëñ kokki moom moom satalaam gi jigéen du ko laal ko ne du ko laal moo koy duyul ba boo gisee forop si fallu boobu mu toogee satala gi nekk ci wetam lu am solo la mag ñi sëñ Tuubaa satala gi satala googu da koy teg ci wetam nii kenn du ko laal ndox mi ci nekk moo ko moo ko ci def loolu waa uta sax satala man di lañ jéem a niru nirulu sax doonte ne jëfandikoo wuma ko ngir rek xam li ñoom lañ ci jublu ñoom satala kon léegi day seet wicc kon ndox mi nga ci nga ci ci xam ko nga ci ci nga jàpp ba nga jógee di jël satala gi di ko duyi wala nga jigéen ne jëkk satala gi fekk am ndox mu moo jàpp ne set na su boobaa yéene nga julli jërul nga nag damaa yéene julli sëñ bi nee na loolu bi bi daala di di ko tudd baat yi ndax boo yeexee ma nga ne damaa yéene léegi nag amun taxaa ñoo nga la suñ mbokk bi nga ne ah man accord ah day jàpp man baax na suñ mbokk bi daal di jàpp xam nga xool day dama yéen képp de waxu dara. kon léegi wax ci aggugut fàtte na ne aggugut léegi kon boobaa day jàng su su su su mbokk bi bu nappee jàpp de dafa jàngu. c'est-à-dire di ko julli fekk julli wut ndax dafa jàngu. beneen sew sew bi mooy suñ mbokk bi daal na man de maa ngi yéene jàpp julli tisbaar jàpp ba noppi ñëw julli subaar toog toog di waxtaan for peut-être lan jot mu yëg ne jàpp mi tujjut mënu ci julli takkusaan ndax da koo takk koon ci ne tusubaar képp la ci julli mën na ci jàngal xaar nag mën na ci naafil la waaye mënu ci jullee te farata sëñ bi ne kon léegi yow da nga naan yéneen na maa jaamu yàlla mu daal di boy lépp lu jaamu yàlla rek mën na caa nekk mu war a sëñ bi ne kon naan yéneen na maa julli tusubaar ci bés sàngam nàngam loolu daa gudd moom loolu daa gudd waaw léegi suñu gudd ne moom jëru ko yàlla mi ngi wàll xam na ne tusubaar ngay bëgg a julli xam na ne bés sàngam la jëru ko loolu loolu teeñal la waaye nag baax na ñoom li def ko ñoom dañoo bëgg yëfi leer ndax ñoom ñi ñi ngi dox ci an niyatu melan alxasdu jublu waay bi sa destination ci bi ngay jàpp lu mu doon nga ne damaa bëgg a julli tusubaar sëñ sëñ bi ne la neel damaa bëgg a jaamu yàlla koor gi ñuy ñëw yàlla ñu fekk fekkaat ñu fi ay at yu bari bu dikkee guddi nga ñëwee feeñ na neel yéene na maa woor weer wi jeex na bu ëllëgee jëru yéene waat yéene bi weer wépp la nga daal di kon jàpp nga daal di nag ñëw fi ngay toog fi ngay jullee boo jàppee ba ne bëgg a julli dem ci kër kër Ablaye Lo Ablaye Lo kër yaay Ablaye Lo joo xam ne moom du julli këram du julli ñoom du julli suñu faa julli ni fekk nii woo ko sëñ bi de dama bëgg julli mooy la bisimilah bu ne déet sëñoo ko ba fa jullee julli woo foofu sew sew amaan na suuf si ngay jullee képp boo ko muumut wala amoo ci ndigalul julli ca sa julli baaxul suuf si sa suuxu bi nag yow suuxu bi nag sa suuxu bi bu dee léwut boo jullee du baax foofu sew sew la moom suuxu wi fexe ba suuxu wi leew sànq dafa am kuma woo lu am solo la wax ndëgë ni daaw nee na waxoon na ma ko xaw a am jafe-jafe maanaam léegi entrepreneur woo ko ne ko tabax église mi ngi fi nangami millions yu bari la millions yu bari la sooy naan waaw rek ñu la koy jox daaw waxoon na ma ko ma ne ko kooku seytaane la mu ñël ren jii sànq ci ci biir mu woo man ne ma ah man kat xam naa ne seytaane jàmbar de waaye man kat kon daa mel ne kon daal nangam nangam kon dañ may seetaan waxaat nañ may dina ma ab église ngi nii tabax ko xaalis baa ngi nii ma ne ko ah ma ne ma ne ko seytaan yàlla muñal ndax adduna ji day jeex alaxira ngi ñëw li li li ma yëm li li ma yëm si bi mooy kon kat xoolal xoo xoolal bon ni mu yombe ku ñàkk soxla xaalis lool ñu ne ko xaalis a ngi nii waaye tabaxal église daaw da dara ma ñu ngi ko woon ta tabaxloo jolof puuta ci ci ci puuta oh dëkk bi si Omar Fuuti yu oh xoolal ñu koy tabaxloo jox ko ab jurit ne ko tabaxalal ci sa dëkkub sëriñ ba ci Omar Fuuti yu ah église bu léegi da koy bind góor a njaay kat ab julit la moo tabaxal ab église ca suufu Cheikh Omar Fouti yu luñ fa luñ fa def ci seen mooy yàlla yooyee ndax suñu waaye nee na ñoom seen jàmm ko mooy yàlla la dañ ci am compte bi dañ lay bindal compte bi nee na yow kat yaa ko tabaxoon adduna métti na kon kon kon ñu ngi kon ci julli gi julli gi danaal di booy julli fi tool penko bi ñu ngi xool ni penko bi war nañ ko fexe ba ba gën koo rëdd penko bi mooy pen mooy xibla penko mooy xibla bu dee suñ suñ gox yi penko bi xibla bi fa la ne bawal man waaye penko xibla ñu wax xibla ci fiq xibla fa jublu kaaba ga shattaral masjidil haram fi toll kaaba gi bu nekkee nii am ku dëkk fii am ku dëkk fii am ku dëkk fii ñun ñëpp fii lañ jëm xettarahu mooy mooy xibla bi fam fam ne waxuñu la nag na ñëpp dàkk dàkk kaaba gi kooku kooku kooku mënta nekk waaye fa kaaba ga sëppeelu na fa ñëpp jëm nga la wóor ne yaa ngi jëm ci ci kaaba nga ci ci ngay julli julli gi nga ne kat maa ngi yéene jaamu yàlla jërul nangam nangam ilimaan ji bu dee tari bu dee day tari ca kaw ngay dégg nga déglu tari bi ak jaamu la soo xamee maanaam moom est-ce que day day gën a baax iyyaaka na'budu nga ne oh nee na yow kot rek la ñu jàmm iyyaaka nasta'iinu nga ne oh nee na yow kot rek dong la ñu dimbali ko ihdina s-siraatal mustaqiim nga ne ah lu tax moom lépp mu naan naxnu naxnu mooy noonu lay wax noonu waxul kenn de kon soo bëggee kon si sa yaan nangu boole si jul ñëpp ba mu waxee ba àggal yàlla jàngal ñu su ñaan gi daanoon lu ñuy wax mu ne amin amin ci làkk yëpp la séeréer bambara wolof français anglais lépp amin muy andi andi yàlla andi kon léegi bu dee ci yi nga xam ne dañ ko yàllaw yow da ngay jàng liman ji ma ngay jàng waaye diggoo ko kon kon da ngay jàng ilimaan ji su dee biral ba wax wala daaliin ñëpp ne andi andi amin amin loolu lu lu am solo la yaa ngi ngi seetlu ilimaan julli gi li muy firi ilimaan ji bu dee wax ñëpp ay déglu soo waxul ñu wax man fi doolu julli jàngal nañ ne kilifa nag mooy koo xam ne kat li nga xam dong la la xam Faatiha lay jàng ak saar xam nga ko soo ko dégloo mu mu mu mu jàng leneen nga ne ko sëñ bi yow kon julli woo subhanallah bu lànkee nga beru dem julli ji sa kilifa gi sa njiit li comme man di doon bu la wooyee ci diine nga wuyu su noppee wax diine nga ba ko fa kon julli kon kon kon daa am lu muy lu mu jàngale ilimaan ji su dee wax fatiha ak sar bi yoo xamoon yaa ngi ànd ak moom waxatu ko da ngay daan subhanallah ah waxatoo la lañ xamoon de mooy mooy subhanallah bu lànkee nga ba ko fa kon julli kon mi ngi jàngale kon lu am solo julli sàppe si jóg mooy ñun ñëpp dañoo war a doon ni ab miir mool wu nekk téye morom ja julli day war a mel noonu léegi gi nag julli saxaaba yi buñ ko masaa def yëfar yi dañuy tiit ah ñi xanaa bu dina xeex kon danañ mën a nekk benn day am ilimaan lu mu wax ñëpp déglu ko su waxut ñu wax loolu am njàngale mu mu sell moo xamante ne jullee ngoog julli léegi gi nag yaa yaa ngi xool ci julli gi asalaamaaleykum ja suñu tubaab nee na feeg waxut koom julli gi jeexagut xoo xoolal ilimaan ji ni ngi koy dégloo ba mu jeexal takk asalaamaaleykum dégg sax naa di démb dañ koy wax fi wax ko fi nañ xam loolu ñu xam benn la benn bi benn bi moom mooy farata ci topp kum neex def ko waaye moom julli gi fii la yem asalaamaaleykum xam ne da nga naan ko nii bala ngaa sañ a jóg ta taxaw julli gi balaa jeex aleykum ji da nga koy wax ba noppi baaraam bi ñuy def nii di ko yëngal ba baaraam sànnikaay bi du ci julli gi waaye sayyiduna Bilaal radiyallaahu taala anhu bañ koy sonal mu naan allahu ahad ba mu jumutu ko mu naan ahad mu jumutu ko muy yëngal baaraam ba Bilaal ab ko ñuul la di kon ëccëppi loola moo ko dugal ci biir julli gi nii mooy ahad allahu ahad kenn la yàlla kenn la yàlla kenn la kon moom it lu am solo la xam ko xam ne loolu lu am solo la sun maam sun maam ju tudd Bilaal alxabashi moo ko daa def kay kon soo mënta wax it xol baa ngi koy fas ci ab cër baaraam ba di di ko def benn benn maa ngi dégg turki seen benn góor da daay ñëw tekk ca jàmbaar la dem ca lakkatu mburu ba mu gis ko gis ko muy bind day def mburu mi def ci ñetti rëdd mu ne ko waaw loo ci jublu mu ne ko xanaa man de xawma lu mu doon mu laaj ñu ne mu ñum kat ay ay yëfar lañ ñoom dañuy wax ñett yi ci noonu ñu wax yàlla ñett la waaye du joxe ab décret daal ne mburu mi léegi nañ ci rëdd benn rëdd yàlla kenn la kooku kilifa la kilifa gi buur bi wàcc ba ca fa ñuy lakke mburu ba xam nu ñu koy lakke loolu day wax président bi nga rek kon président Macky Sall ku mën doon ba xam nga ne la Seydou Amar waxoon rek ay ñëw ci yow maanaam su gëleem téléphone ca àllub Saam mi ngi mi ngi Madina ala sakiniha afdalu salawat ne ne bu téléphone su su su pencee man lañ koy laaj lu tax nooyelu la ko yoon wa ba téléphone oh ko defaa kon président kon tëri yu bon yi kon bu ëllëgee nit ñi dee seen ko laaj kon lu am solo la lu am solo la loolu mooy diin nga xam ne kon ruuxu maa ngi wax kon ruuxu julli gi am na lu ma fàtte woon ci ndox mi ndox moomu ñaan dafa boy